dëppoo nañ ci ni fu weer yu feeña rek ñëpp dañu war a ànd woor bu dee ca koor ga bu dee ca yi ga noonu bu dee tabaski noonu lenn ci madhabu shafii yi ñoom rek ñoo wax ni dëkk bu ne day sukkandikoo ci gisu boppam te même ñooñu ko wax ci shafii yi it jooyaluñu mbir mi booyaluñu ko dañ am fu ñu ko tënk dañu ne bu fekkee dëkk yi jigante nañu su boobaa fu mu feeñe ñëpp dañ cee war a ànd sukkandikoo ci gis-gis boobu bu fekkee dëkk yi daa sorante nag foofu la xilaaf bi am muy wuute bi te sori googa te sori googa ñoom dañ cee wuute seen biir ci ay wax yu bëree bëree bëri kon foofu liñ bëgg a wax rek mooy li nga xam ni moo siiw ci waxi boroom xam-xam yi fiq yi moo di weer daal fu mu feer feeñe ñëpp mën nañ ci sukkandikoo allahu akbar allahu akbar allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila bokk jullit yi loolu bu leeree daf ñu yóbbu ci beneen tomb mooy lii am ci suñu Sénégal gii moom loolu ñu xilaaf ci fiq ñun lii am ci suñu Sénégal gii du xilaaf ci fiq bi maanaam du xilaaf ci fiq mooy doo dem ci benn téere fiq fekk ko ndax bu fekkoonte ne masalam fiq la kon du ñu am problème ci di wuute ñii woor tey ñii woor ëllëg ñii tabaski tey ñii tabaski ëllëg ndax ngir mi nga xamante ni moo fiy dox te waa réew bi ñu wax ne ci lañu tënku wala ñu ëpp ci réew mi mais ngir maamu Maalik li ñu yaxal ci seeni i téere mooy weer yi fu mën a feeñe rek ñëpp ñoo ci bokk téere bi gën a siiw ci ngirum Maalik nga xam ne moom la ñuy dellu ci wàllu fatwa muy muxtasaru Xaliil Xaliil dafa wax ci Yaxba ne wa amma in nuqila bihima anhuma wa amma in nuqila bihima anhuma nee na su fekkee ñaar ñu maanu gis nañ ko xibaar boobu daj na mboolem àdduna bépp ku agsi ci yow xibaar boobu engage na la kon dañ cee war a sukkandiku jël kon su fekkoon ne dañuy wax dañoo tënk ci mbiru Maalik kon xilaaf bii am tey dootul am beneen bu gën a xóot boobu buy wane ne kon xilaaf bi mooy juyoo bi du ci wàllu fiq ba mooy madhabu Shafii bi wax ni dëkk bu nekk ak gisam dañ ni bu fekkee dëkk yi daa sore nii waaw dëkk yi jigéen ñi nag kooku xilaaf amatul benn madhabil arbaa ci ne fu ñu ko gisee ñu te dañoo war a woor dañoo war a woor wala tabaski waaye li fi am mooy ñu dëkk Sénégal ñoo koy gis waa Sénégal wala ñenn ñoom lànk bañ a woor wala bañ a woor kon kooku ni ko tul xilaaf fiq parce que tey doo mën a xam ñeneen ko gis ci biti waaye ci biir dëkk bi lañu koy gisee ay nit gis ko ci dëkk bi ci ay gox yu wuute am ñu lànk ni ñun xibaar boobu gën kon mani ni xilaaf boobu kon du xilaaf fiq waaye xilaafu leneen la bu loolu weesoo mbokk jullit yi ñu ànd xam ni mooy yàlla yi ak mbon bon yi bu dee tasaaroo ci société yi nga xam ni askan yi nga xam ne ay jullit ñoo fa dëkk day dolli seeni gàllankoor day indi ay feebar de indi deltu ginnaaw ci wàllu économique waaye day indi anarchie ci wàllu politique mooy li ñu dal tey bépp dëkk boo xam ni njaaloo tasaaroo na fa ñu koy dooleel di ko dëgërël wàllu góor jigéen tasaaroo na ñu koy dooleel di ko dëgëral dëkk boobu toujours bu fekkee ay jullit dañuy woowe seen bopp day dañuy deltu ginnaaw ci seen wàllu économique te xeeti feebar yi yi ci gën a néew mooy feebar yi nga xamante nii mooy feebar yi ñuy gis tey jii ni nga xam ne ci yaram wi rek lay dal waaye am na yu gën a garaaw loolu muy feebari xol yi nga xamante ni moom du bàyyi nit ki ba tàbbal ko sawara mbokk jullit yi njaaloo nekk na lu réeréy lu garaaw a garaaw moo tax suñu borom tabaraka wa taala bi mu koy tere ci alquran waxul ni sax bu leen njaaloo dani wala taqrabu zina bu leen jige sabab yi tax ngeen di tàbbi ci njaaloo innahu kaana faaxisatan wa saa sabila suñu borom xamañu ni njaaloo lu ñaaw la lu bon a bon la ci beneen aaya suñu borom leeral ñu lan mooy àtte kuy tàbbi ci jëf jooju mu ne azzaaniyatu wazzaani fajlidu kulla waxidin minhuma mi'ata jalda njaalookat bu góor ak bu jigéen bu fekkee sangewuñu mooy mosuñoo sëy nañ leen dóor téeméeri yar loolu la islaam wax loolu lépp rek suñ borom tabaaraka wa taala ak yërmandeem nga xam ni moo la gën a bëgg say waajur su demee ba nañ la dóor téeméeri yar xam na ni crime bii nga def suñ ko bàyyee bu tasaaroo day yàq dala dana la yàqal yow waaye dana yàqal askan wi bu dee jëfi góor jigéen suñ borom tabaraka wa taala dafa jéppi ña koy def ba mbugal mi mu leen mbugal musu koo mbugal aw nit ci kaw aduna borom bi tabaraka wa taala nee na fa lamma jaa amruna jaalna aaliyaha saafilaha wa amtarna alayhim xijaratan min sijilin mandur musawamatan inda rabbik wa ma hiya min alzalimina bi baid suñ borom nee na ñu doon jëfandikoo mbirum góor jigéen ba leen yonent yàlla luut waaree ñu koy saboote ba ñu deltu ginnaaw ba suñ borom tabaraka wa taala leen jéppi leen suñu borom nee na ay xeer laa taw ci seen i kaw muy sottiku seen kaw ba ñu ànd ñoom ñëpp dee daal di faatu suñu borom daal ñuy xamal ci mujjantelu aaya bi ni na ma jëflante woon ak ñooñu démb yi noonu laa man a jëflante ak yéen tey jii nii kon nañu deltu ginnaaw ci loolu kon jaaduwul ci ñi nga xam ñooy kilifa yi ci wàllu diine ak waram xam-xam yi ñuy noppi ci lu mel noonu muy tasaaroo ci réew mi waxtu man di jéem a andi ay atte yoo xam ne dafay aar wala dafa défendre ñi nga xam ñooy jëfandikoo mbirum góor jigéen wala di leen autorisé wala di leen jox ndigal ci ñu jëfandikoo looloo ndax la koy soqi ci merum suñu borom tabaraka wa taala ak ay jeexital yoo xamante ni yu bon a bon la ci individu ba koy def ak askan wa muy dund mbokki jullit yi tomb bi nga xam ne ci lañuy ñuy tëjee xutba bi moo di ni jamono yu mujj yi bu ngeen seetloo bëri na lool ngeen di dégg ay nit di toog ci ay rajo wala ay cérémonie di attaqué li ñu woowee sunna kon nag jataay yu mel nii bu amee mbooloo mi daje fi la jaadu na leeral lan mooy na ndax na mooy ay nit yu njikki njikki jóge fenn di contre ay mag wala lan mooy sunna ak lan may wàccuwaayu sunna ak lan may doyof sunna ak jullit bi lan may taxawaayam bi sunna loolu dafa war a leer ci bopp nit bi ndax ñu bëree bari ñi nga xam ne jànguñu ko dañu naan am na kuréel boo xam ne wala mbooloo yoo xam ni ñoom kat dañuy yëg dañuy julli di aj seeni loxo dañuy bàyyi seeni sikki dañuy gàttal seeni tubay dañuy yor ay sotti ñooñu dañuy contre mag ñi dañuy diingat mag ñi déedéet fekk mag ñooñu ngay wax sax ñoom seen biir mbind lañ dénkaanoon mooy nañu topp alquran ak sunna ba tax na kon jaadu na ñu leeral lan mooy sunna sunna suñ ko waxee nekkul am ngir wala ab tariqa wala loo xam ne bàyyi kenn ko moom wala maami kenn sunna mooy njubug yonente bi alayhi salaatu wassalaam waxi yonente bi jëfi yonente bi lu ñu def ci kanamu yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu nangu ko loolu mooy sunna yonente bi alayhi salaatu wassalaam ku xeex loolu yaa ngi xeex diine loolu mooy diine bi waxi yonante bi ndax yàlla tabaraka wa taala bi ñu indee fii ci kaw suuf ngir ñu jaamu ko bàyyiwuñu ne jaamoo leen ma ci seeni xel ak nu ngeen ko xalaat daf ñoo jox ñaar ab téere akub yonante mu jàngal yonante boobu téere ba mu xam ko mun ko jàngal ko xeet yonante boobu yi nag ci waxam ak ci ay jëfam ak li mu saxal ci la ñuy dégg téere bi ci la ñuy mën a jëfandikoo téere bi kon boo contrôler sunna yonante bi alayhi salaatu wasalaam doo dégg téere bi waaye boo contre sunna yonente bi alayhi salatu wasallam doo mën a jëfandikoo téere bi pour nga mën a xam li yàlla wax ci alquran ba mën koo jëfe da ngay jàng sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam kon mbokk jullit yi sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam du loo xam dañ koy gam-gam leeg diw lee la wax wala ma sàmba nee na wala ma demba nee na ndax suñ borom moo wax ni wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha garanti boobu kenn la ko yàlla jox nee na kii di yonente bi alayhi salatu wasalaam du waxe bànneexu ba kenam lu wax noona la maa ko wax ci man la bàyyi ko garanti boobu moo tax topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul fu muy tàmbalee amul fu muy yem topp gu mutlaq la boo sawaree da nga koy topp boo taayalee da koy topp bu la neexee da nga koy topp bu la naqaree da nga koy topp boo nekkee ci naataang da nga koy topp boo nekkee sabaan da nga koy topp kooku kenn rek la ko yàlla jagleel mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax lépp lu bàyyi koo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu aju ci wàllu pas mu aju ci wàllu jàmm yàlla mu aju ci wàllu jikko ak comportement lépp dañ ko war a jël waruñu cee bàyyi dara suñ borom tabaraka wa taala wax nañu téeréem bu tedd bi ni seen mandargam bëgg yàlla mooy topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni su fekkee da ngeen a bëgg yàlla tam dëggu ci yéen topp leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam suñ borom waxaat ñu ni wa maa aataakum rasulu fa xuduuhu wa maa nahaakum anu fantahu lépp lu leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam andil jël leen ko waaye lu mu leen tere bàyyi leen waaye suñ borom tëkku képp koo xam ni da ngay wuuteeg ndigalal yonente bi alayhi salaatu wasalaam tëkku képp koo xam da ngay wuuteeg sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam borom bi nee na falyaxdari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim nee na ñiy wuuteeg sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax mbirum yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy sunnaam nañu moytandi ko balaa yàlla leen teg fii ci àdduna fitna ju réerée rëy wala mu teg leen mbugalum àllaaxira kon wuuteeg sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñaari résultat la mooy fitna yi àdduna baa mbëggalum àllaaxira yàlla na ci yàlla musal suñ borom xamal ñu ku topp yonente bi alayhi salaatu borom tabaraka wa taala loolu ci yonente bi da ko yàlla wax amul keneen koo xam boo ko toppee ñu la topp nga yàlla muy waajur muy borom xam-xam ak muy sëriñ ba kooku daa am fuñ koo topp ak fuñ ko lu topp waaye koo xam la cent pour cent yonente allah ku borom bi mu waxaat ñu mënu leen doon dëgg-dëgg ay jullit lu dul seen mbir yëpp dañ koy delloo ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam na ngeen di julleeg na ngeen di woore na ngeen aje màkk ak parce que suñu yaag parce que yaag lépp dañ koy delloo ci su loolu seenu ngëm yàlla manqué ne wàññiku na borom bi moo wax fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir su ngeen werantee ci dara te werante mënta ñàkk léeg kan moo ñuy àtti sunna yonente bi alayhi salatu dellu ci alquran te boo delloo ci alquran dellu sunna parce que alquran mënuloo koo dégg te delluwoo dee dund bu ngeen dem leen ci moom bi mu génn àdduna lu ngeen sunna yonente bi alayhi salatu wasalam borom bi waxaa na ci beneen aaya ni fala wa rabbika la yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum nee du ñu mën doon dëgg-dëgg ay julli lu dul lu xew seen bi dañ koy àtte woo ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam te su wax rek dañ ne فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا yonent bi ci xadis boobu daf ñoo wax problème boo xam daañu ko dund ci kanam bu fi jugee problème bi mooy lan ku fi yàlla bàyyiwaat boo fi yàggee tuuti da nga gis ay juuyoo ak wuute yu bëree bëri ci wàllu diine moo tax ñuy wax waaw subaa luy solution bi mu ni fa alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa irrachidin almahdiyin tamassaku biha wa addu alayha binnawaaj nee na su boobaa daal lu coow yu bëri bëri bëri jàpp leen ci sama sunna ak sunnay sama xulafaa yi aboubacar omar osman ali te mooy sunna ndax ñun daawuñu génn sunna yonent bi saa sallam mu ni tamassaku biha jàpp leen ci xam nga tamassuk mooy téye bu dëgër waaye yemu ci mun wa addu alayha bin nawaadi téye ci sa diina day jafe day tumuranke ci mujj jamono tur wu ne daañu la ko wax daa buñ la mën a dar daañu la bundu xataal buñ la mën a génn ci kër gi ñu génn la buñ la mën a génn dëkk bi génn la waaye subaa lu man di xew addu alayha bin nawaadi denc ko kon sunna du loo xam day ñuy waxaale boo nekkee ci ay problème daal di tàmbalee bay li déedéet kon nee na tamassaku biha jàpp leen ci bu dëgër a dëgër ci sunna waaye nag waa abdu alayha bin nawaajis nañ ko téye ngank ko seen dëgëj ba du rëcc mu teg ci lu am solo mu ne wa iyaakum wa muhdathaati l umuur lii sunna ba duñ xam sos wa iyaakum wa muhdathaati l umuur na ngeen moytandiku mbir yi nga xam dañ koo sos ci wàllu diine ci ginnaaw yonente bi alayhi salaatu mu ni fa inna kulla muhdathatin bidaa lépp lu ñu sos ginnaaw yonente bi alayhi salatu wasalam boole ko ci diina ji loola bidaa la wa kulla bidaatin dalaala bépp bidaa boo gis ak cànkute la réer la loolu yonente bi alayhi salatu wasalam moo ko wax loolu moo tax sahaaba yonente bi alayhi salatu wasalam nekkoon ñu xër lool ci jàpp ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalam daaw ñu andi seen xalaat wala seen gis-gis ci kanamu sunna yonente bi alayhi salatu wasalam xanaa kay bu masala ñëwee gisuñu rek yàlla wax ak yonente bi alayhi salatu wasalam ñu jéem a góorgóorlu teg ko ci lañ jànge woon ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu saxaaba yi nekk woon taabiin yi noonu fi nekkoon ak taabi taabiin imaamu zuhri nee na te moom ci taabiin la bokk ñu jàngal imaamu malik la bokk sëriñ imaamu malik la nee na kaana man mada min ulamaina yaquluun al i'tisaamu bi sunnati najaat aw najaat imaam moom ci ñu jàngal imaamu malik la bokk ci sëriñam yu mag yi la bokk nee na man ñi ma fekkoon te xam ngeen ne moom jël na ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ñoo ñooy sëriñam yi gën a mag mu ne ma fi bokk fekkoon dañ daan wax ni jàpp ci sunna mooy ci sunna najaat mooy indi ak mucc kon ku bëgg a mucc nooy def da ngay jàpp ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam don ndongaam bi nga xam ne imaam Malik ñëw dëgëral ko imaam Malik nee na as sunnatu safinatu nuux man rakibaha naja o man rakibaha naja imaam Malik ne ne sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy jaalu yonente yàlla nuux ku ca dugg mucc waaye ku ca dugg nag allah imaam al awdaayi nee na إذا بلغك عن رسول الله شيء أو حديث فإياك أن تقول بغيره فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى نينا saa yoo xam ne sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsi na ci yow ne na nga moytandiku di wax waxi keneen wala nga koy dendaleeg waxi keneen ndax nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo doon jottali suñu borom tabaraka wa taala mu waxaat ci beneen wax ni najuuru maa sunnati xaytu daarat nee na daal foo ñu fekk daal fu sunna wëndeelu rek ñu ànd ak moom di wëndeelu du ñu génn géewu sunna ba mukk kon loolu moo doon dénkaane mag mi baax ñi fi jaaroon allahu akbar allahu akbar allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila mbokk jullit yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis ñëw sahih buxaari mu ni samaw xeet wépp ñooy ànd dugg aljana ba mu des ko bañ ñun ko yaa rasulullah kan ne bañ a ay aljana mu ni man ataani daxal aljanna wa man asaani faqad aba ku ba topp dugg aljana waaye ku ma moy kooku mooy ki lànk bañ a dugg aljana yonent bi waxaat ci xadis bi ñëw ci buxaari ak muslim mu ni man raxiba an sunnati fa laysa minni ku sib sama sunna ku ko bañ bokkuloo ci man kon nag kii xeex yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam war naa xoolaat boppam ci lislaam yonent bi moo ne man raxiba an sunnati fa laysa minni képp koo xam bañ sama sunna da ngaa sib sama sunna kooku bokkuloo ci man mbokk julli di kon li ñu war ci sunna bëri na lool jotaay bi xat na pour wax ko waaye la ci jiitu mooy ñu gëm ni sunna su yonente bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu mu wax ak lépp lu mu def ak lépp lu mu def ci kanamam mu nangu loola loolu ak dëgg la goo xamante nii kenn du ko jàppee gis-gis wala waxi doomu aadama bu simple kese waaye jàpp wax yu la bu bàyyi ko fa suñu borom tabaraka wa taala ba ci topp mooy lépp lu bàyyi koo ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam te jàpp ne aw lay la wu tege suñu kaw loos bu agsee ci ñun dañ ko war a jëfe su dee lu ñu war a jëfee waaye dañoo war a jàpp ne moom mooy référence bi gën mag bu ñu jëlee ay attey diine ginnaaw bu alquraanul karim jàlle bokk na ci yooyu mooy lépp lu bokk ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy màggal sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam comme na ko salafu saalih doon màggale salafu saalih àggoon na ñenn ci ñoom ñoo xam ne bu ñu waxee ne yonente bi nee na yow ngay wax waxe keneen ñu wan la ginnaaw bi sahaaba yonente bi alayhi salaatu wasalaam la tàmbalee muy ibnu omar ak jaabir ak ñi la ginnaaw de ndax yonent bi alayhi salatu wasalam du ko ñu gam-gam leeg masamba wala ma demba bokk na ci yooyu mooy jullit ñi war nañoo góor góorgóorlu ci lépp luy tax nag maanaam ñu wattu sunna ak tasaare sunna ci di ko jàngale ak di ko nangoo jàng ci mboolem anam ya nga xam ne jàppan na ci ñoom ndax it réere sunna dana taxaat dana tax nit ki noonu am na koo xamante ni dafa bañ sunna ngir ak réer ak ñàkk xam am koo xam ne xam na waaye dafa gis ne sunna day menacé ay intérêt tax fu mu toll mu koy ñalti ñalti di jéem a xeex sunna te moom day dee bàyyi fi sunna sunna di continuer ndax sunna kenn mën koo xeex suñ borom moo ko garanti comme ni mu garanti alquran borom bi moo wax ne inna nahnu nazzalna dhikra yàlla moo wàcc alquran mooy sàmm alquran sàmm gi mu sàmm alquran ci la sàmmaale li leeral alquran te mooy sunna yonente bi alayhi salatu wasalam moo tax sunna ku koy xeex da ngay sonn di ko xeex ba dee waaye du moom di ba ila maa ngi fàttaliwaat sama bopp leen fàttali dénkaaneel borom bi tabaraka wa taala mooy ñu ragal yàlla te topp ko maa ngi dénk sama mbokki góor yi ñu gën a góorgóorlu ci seen soxna yi ci toppatoo leen ci taxawu leen too seenu njaboot góor góorgóorlu ci yar leen ak teg leen siraatul mustaqim ndax jamono ji nekk rëpp na lool lëndëm na lool di dénk jigéen ñu gën a góorgóorlu seen kër yi di gën a góorgóorlu toppatoo seen i borom ko toppatoo seen i doom wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa taabin ajmain yaxfirullahu li wa lakum